léegi day ah nit ñaay rayal seen bopp de mar di tali tribune yéen kaay ne ma ne fukki doomu aadama ak ñett day waaw ci ñetti weer yii ñoom lañ rey inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ubil tribune yéen kaay ma ne la mu ne ñu ne danaa leen wax kon ñooñee nga xam ne la ñu rey ak añ lañ leen rey la ilaha illa la benn alxamis ñaar fukki ci weeru octobre laa la wax Ousseynou Diop waaw balu fetal di koy kii di Ibrahima Samb ba waaja dee allahu akbar ñaar samedi ñaar fukki fan ak Ba daal di rey kii di Yankhoba Ndiaffane ca Cambérène la ñett àllarba ñaari fan ci weeru novembre day waaw Ousmane Mané ah daal di jam Ibou Laay waaja dee allahu akbar ñeent alxamis ñetti fan ci weeru novembre day waaw Baye Kunta ah daal di rey kii di Mouhamadou Bamba lii la ilaha illallah juróom dimanche juróom benn fan ci weeru novembre day ah Ibrahima Diallo ak Moustapha Faye waaw ñu rendi leen kon ca benn pharmacie ca Ndioum Ndiaye la ilaha illallah juróom benn samedi fukki fan ak juróom ñeent ci weeru novembre day waaw Fatoumata Moutar Ndiaye waaw chauffeur bi di Samba Sow daal di koy rendi ca Pikine Gueye ilaha illallah altine ñaar fukki fan ak benn day waaw Alfred Antoine Yacine ñu naan ko le roi Benoît daal di koy jam mu dee mu waay yéene kaa gi ne waaye nguur gi day waaw lañ jam na kon abaaraamu tuuma dee Pape Samb jël xalimaam ne waaw parce que yow kaaraange askan wi ci boppam kon ak seen kaaraange wu alal loolee ca ndodd nguur gi ca boppam kon la ne ma ne la comprendre nañ kon Sénégal te boppam day di bokk ci réew yi nga xam ne ne kon dañuy jël seen i tak der di leen yóbbu ci biir adduna bi day ngir bi kon ànd waaye nag waxuñ nañu jël kon suñ tak der yëpp daal di leen ne ñu dem sous région bi ak yooyu yee wala adduna ba parce que nag balaa ngay santaane sangu kan day fekk ngay raggu ba nuppi charité bien ordonnée commence par soi-même loolay dëgg xoolal ma Sénégal mooy juróom ñaareelu réew bi dàq kon yóbbu nag ay der te way mbootaay xeet jëlee di troupe onusienne ya waaw ginnaaw Bangladesh Éthiopie Inde Pakistan Rwanda ak Népal Sénégal a nekk te septième place fa laa la wax termine yéene kaay ne dama ne fii ngay jàpp Samba looloo tax nag ba yéen ñi tey bu ñu jàppee ab Samba Surabale agresseur wala sàcc ak waaw daal di koy atel seen bopp door ko ba muy bëgg dee laa lay wax ni lée way laa askan wi ci boppam daal di téléphoné police police xamal leen carrément ne leen mënuñoo ñëw eh way samba di daafantaloo ne maanaam yoruñu fi kon ay élément di ay takk der ak way la suñuy oto dafa baan way la oto amul essence eh way samba yaa problème réew mi quotidien na problème bi kay waaw Sénégal ak maanaam bakkan yi nga xam ne nag maanaam kon ñu fi ron nii mbaa du Sénégal nag daa dugg kon ci am guuta reet yoo xam ni ko nekk fi kon di catatati mar di taal ma ne la mbir mi waxtaan la laa ne loolooy dëgg gis tëral nañ leen teg leen pression ku rey nañ la rey ci wàllum peine de mort googee gis nga 2015 waaw bi waaw la wax daal moo ñu dellu ginnaaw xoolaat ci koy démb yoo indiwaat valeur tey bakkan yoo yee di rot le quotidien yéene jeexe de ama kan jël xalimaam ci yéene ma jambal jàngile ne bu leen roof paaka bi lee ci biir góom laa la wax Fatoumata Moutar Ndiaye waaw nekkul ne moom mooy sénégalaise bu njëkk dee bu ñu rendi te nekkul ne te moo koy mujjee déedéet ñaari semaine ci ginnaaw ñaari doomu aadama yoo xam ne ay sénégalais lañ day dañ leen a rendi kon te pharmacie kon te njum gële te pourtant journaliste yi day ak yenn ci askan sax niñ waxee kon wàllum Fatoumata Matar Ndiaye mi lee waxee wuñ ko nag faatu ñaar ñoo ñee nga xam ne kon dañ leen a rendi coow li jóg réew bi bari bañ leen kon wàllum penda mort et ñoo fi wax wàllum penda mort ku rey nañ la rey waaw mais ñoo ñee ñoo fi organisé woon marche day mu dugal loxoom ci dossier Mbayang Njóobale balaa jaa si Arabie ba kon di dal ci kawam amaa kan yemu ca waaja daal nee président de la république kon dem nag maanaam jaale ji ko mbokkal parti loolee comprendre nañ ko waaye xam nga lan lañ comprendreul mooy ñaar ñañ rey ca njum gëlee rendi leen lu tax ba président kon demul nemmeeku ji seeni njaboot incompréhensible mu mel ni daal aw bakkanu politicien waaw moo gën a fort fuuf ñaari bakkan yoo xam ni kon ay citoyen ordinaire lañ astafurlah le populaire ne Samba Sow day waaw jàkkaarloo na kon ak procureur bi lée di Serigne Bassirou yóbbuwaat nañ ko commissariat retour de parquet laas moom safeeru Fatoumata Mataan Njaay day ci kanamu enquêteur ya waaw dëggal na ni kon moo ko rendi Allahu akbar ginnaaw ñaari jam-jam l'observateur ne yaayu Fatoumata Mataan Njaay day ci kanamu enquêteur ya waaw ay mbóot yu doy waar la mu wax doy na waar ci doomam ji rendeem nga ba ca kon na mu tëddee ca côté ndeyjoor Allahu akbar Pikine la la dëkk c'est populaire du doon candidat yaa jum wala maa jum Guissé ne waaw ah, du total mukk Mamadou Gisee ne xam nga ca départ baax waaw dañ doon wax naan Karim Wade daa dem kon ca Doha gee ca Qatar looloo tax mënul def kon ab déclaration ñeng ñeng ñeng patiti patata gis nga ca jamono joojee waaw man nangu naa ne day gëmuma woon ne dil am na diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade waaye gis nga fi mu nekk nii waaw xam nga lan moo jaxase xel yi naxal xel yëpp mooy kàddu yi nga xam ne kon ñu ànd ak Karim moom lañ wax ak ay avocat naan Karim Wade kon daa waa ñoom xamoon nañ ko lan moo tax nag eh, koo jox nag askan wi ma ne loolee du sax resté laa wax te gis nga nag mbir nii muy demee nii ah, mënul présenté wu 2019 du doon candidat démb ñu nañu ma nga ca Qatar ca Doha tey ñu nañu daa gàttaay waa suba nag du doon candidat laa wax candidat ci wàllum drogue bi day libération yéen kaay nee na njaayum drogue kay ci sous région bi waaw waa Malek waa Sénégal day def nañu jaloore de ah imam Moustapha waaw daanu de imam bu doon jaay drogue la de mardi tali la ilaha illallah libération yéen kaay ne dama ne imam Doucouré ba mu jiitee fajar ga daal ba ne asalaamaaleykum waaw fa lañ ko fekk ne ko nii daal di koy jàpp laa wax <laughs> alaaji imaam bu mu jàpp ak sineebar day ah saay bu yeggee ci aay bi yàlla di waxe ne looy jëfandikoo mu lay tàggaleek sa sago araam na bu fa yeggee xaw ma nu mu koy waxee moo tax ma naan la imaam tëj